mais Birima ngi nii ànd ak ma fii xam yi borom laa bële Birima maa lépp jàmm 2-0 wala 1-1 loolu la loolu lay mu toll nii 2-0 wala 1-1 ah, ah ndox mu sedd mi rëy tey ah, ah. dóor a dóor na de te keroog daa lu ma waxoon nag ñëw na ma bàyyi naa dóor damay mbapat si. combat bi nga bëggoon nga am. waaw nekkul moom mooy choix bi dafa nga bëgg nga nangu bëri dem ba tey war a a bëri ku mel ni lan li nga def xam nga ni ba ñuy dugg si yow da ngay xam lu lan moo utile Lac Rose ak Pape Ndoye Lac Rose ak Pape Ndoye ñu leen utile ñoo bokk ni ñuy bëri ñoo bokk ni ñuy xeexee mais boss gars yi da nga ne Pape Ndoye bu muy bëri ak Jackson xamul xamul Jackson dafa jàppoon day ñëw rek jaar jàll comme ni mu daa def waaw dara loolu lamb la loolu dara bu ma tas kër gi la bu tas kër gi. ah mër kon yow. mais Birima mais Birima li ñu yéeme rek ah. ah mais mbir mi xanaa xanaa Pape sa gaayam la. nga leen di waajee bis bi. ah. bëgg ngeen ko lool. ah. Lac Rose daan ko ban impact lay def seen seen seen yoon. Hmm. Hmm. Hmm? nice quoi. waay waay waay mbir maa ngi <laughs> waay mbir waay mbir maa ngi borom song ah. ñëwaat naa ñëwaat naa at déwén mu ngi ànd ak grand boo xamante ne nag doomu ndeyam la foo gis grand bi rek gis ko ci wetam. waaw avocat la mais avocat buy sotti gàllaaj man ci biir ak. <laughs> non kii est Pape Duboy. waaw ah. kii est Pape Duboy. grand la bu baax boo xamante ne doomu ndey Lac Rose doomu ndey góor gis yi. foo gisee Lac Rose rek gis nga ko ci wetam. ah ah avocat daa daa lu mu doon xool kon ci kii. kii borom resto MCB. Lac Rose ngi borom NGB. mais Lac euh, man foogoon naa ni mbër nga boo xamante ne doo tergiversé ci mbër mais mu mel ni dañ la jox avance avance su Jackson. Mhm. nga toog xalaat lu bëri balaa nga koy jël. waaw kon dañuy sant yàlla rek di nuyu defal ko jàmm. yàlla na ñu ngi ñaan yàlla mu yóbbu ñu si jàmm may ñu wér ak mooy motivation bi tey. combat bi nga jël. lan moo ci mën la poussé nga jël Jackson te amoon choix yu bëri. waaw mm-hmm. amoon adversaire yu bëri nga jël Jackson. lamb noonu la mooy kon ni mu ko waxee rek lamb moom kenn xam reenu ñàmb la kenn xamul fu muy jàmmee kenn xamul nu muy réewee. combat la boo xamante ne nii yàggoon nañ ko bëgg ñun bëgguñu woon mais par la tamit ku nekk da nga amoon sa bopp tamit. am tamit ñooy njëkkal man mën naa bëgg sax ñeneen nit noonu wala nangam mais ñëpp waxtaan yi nañu ba jël nañ ko ñu ngi ñaan yàlla daal mu suturaal ñu may ñu ci ndam incha allah combat yëpp lamb la laaj entraîné def li nga war a def yàlla mi yoon ndam nga sax la ko solo ko ñaan ko mu may nee na a bokk ni ngeen di bëri mu jaaral ñu ngi ñaan yàlla mu suturaal ñu waaw non lenn rek dafa jógee géejawaay dugat géejawaay mais saa yi yaram baa ngi tàng mu ngi mu xool lu mu xool Lac Rose mu ngi la bi lan la am combat Sadaka am combat Girde am bi nan la de a parce que ñëpp nee nañ Lac Rose combat bi bii weesi si soixante dix pour cent la nekk combat bi day gën a neex rek ñëpp bu ñu amee combat day gën a neex ndax même su ma amuloon combat man ak ñoom ñooy bokk préparé ko comme ñëpp ñu préparé ko ñoom tamit pareil que noonu ñun ñëpp am nañ combat ñi ngi naan yàlla mu suturaal ñu may ñu ndam Gris 2 yàlla na ko yàlla may ndam bu sedd guyu te gaaw ci barki yonent bi kon na nga na nga waajee ngay waajal di takk suuf chaque jour entraînement non da ngay liggéey rek loo xalaat ne daal boo ko defee yàlla may la ndam daal ñu ngi ci te ñi ngi ñaan yàlla mu suturaal ñu di di ñaanal waa Leewtoo TV mais mais mais mais ma koor gaa ngi dugg looy wax say am di jàmm looy wax fans yi ak ñëpp koor gaa ngi dugg kañ lay takk ñaareel. yow bës yow bës yow. dara ah Pape Ndiaye comme xeer. Ah? non loolu dara loolu a. loolu jàngat la quoi loolu jàngat la rek jàngat nañu ci lu bari ba ci jógee ba tey na ñu ngi ci yoon boo nga yaakaar ni fay incha allah rabbi maa ngi ko siy jël ay booy. ñoo xam say adversaire moo tax ñu ngi gën a liggéey fi mu yi lépp jàmm. lépp pare ngeen mais mais préparation bi nan ngeen ko dara waajal. ndaxte ndaxte li gëj naa am. Pape Ndoye di waaj bis. Lac Rose di waaj bit si benn kër léegi na am waaw ñu waajal mbir ñu waajal ay mbiru géej waay Pape Ndoye léegi nga ñëwaale Pape Ndoye ah dañuy waaj rek day gën a neex rek lak am a am combat loolu day gën a neex liggéey bi kon liggéey bi du yomb du mos a yomb ah incha allah rabbi la ilaha bu day waar ñu naan ko Jackson. mag moo xam ne ni gars yi nee nañ soixante dix pour cent la nekk te ci combat bii la war a nekk cent pour cent ñu gis la la gis bañ daa gis. waaw laaj moom suñu borom moo ko sédd Sénégalais yëpp ko bëgg. Mm-hmm. boo xasee am jom ñëpp bëgg nañ la. Mm-hmm. loolu mooy làmb ci. Mm-hmm. comme balam jom la te jël na xale bi rek. Euh, nan koy lu ci kanam rawali bëri. nañ bàyyi nañ ko ci kanam. lay wax ni. yàlla baax mais gars yi nee nañ Pape Ndeye ba muy jël Jackson xamuñu ko mais est-ce que xam ngeen Jackson fu mu toll nii. xam koo tax ñu jël ko. géejawaay ngeen jógee duggaat géejawaay. ñu ne ku mu bëri loolu dañ ko war a si fay nag. géejawaay ngeen jógee duggaat géejawaay. d'accord du mag yéen tam tolof tolof loolu mais kii du mag loolu ngeen dina ko yéen tam. du mag xale la. jóge géejawaay duggaat géejawaay. waaw dara waaye moom bu dugg dugg dugg Fass duggaat. Pape Ndoye dugg géejawaay Lac Rose dugg géejawaay. waaw ñu ne géejawaay Fass dër bi la. <laughs> comme ça la. li nga def xam nga ni bu ñuy dugg si yow li nga def Pape Ndoye. lan moo utile Lac Rose ak Pape Ndoye. Lac Rose ak Pape Ndoye ñu leen utalee. ñoo bokk ni ñuy bëri ñoo bokk ni ñuy xeexee. mais boos gars yi da nga ne Pape Leye bu muy bëri ak Jackson xamul xamul Jackson dafa jàppoon ne day ñëw rek jaar jàll comme ni mu daa def. waaw. ah kon yow.